asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkku bu baax ngeen di nu ñaanal di am mbégte ak kontante ci ànd bi ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax na seen bët suñ mbégte jëmm seen nopp suñ bànneexu làmmiñ seen taaxirlu waral suñ farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen koo xam ne que njëriñ lañ ciy séentu di ñaan yàlla bokk gis ko ci tegtal nag ñëw na ci ku bees tàq koo xam ne que dajjeegun paquet bi buñ paree dinañ xam ba xam daf fi war a dëkk jaar wala daf fi jaar ndànk-ndànk wala waratu fi jaar loolu yéen ñi seetaan tey ñëw ci moom di jëflante ak moom yéen a koy atte kon yàlla na doon li neen génn nañ Dakar nag dugg àll bi romb Diamniadio romb Bargny romb Pout romb foofu yëpp ñëw ba ci Thiès ci Medina Fall fi ñëw ci cees nag ku fa dugg di laajte sëriñ rek moom ngay seetaan moom ngay seet si euh, sëñ bi ni seet nag yàlla am na fay waaye sëñ bi fay la sant sëñ bi mën na dimbalee ban ko woowee borom dimbal kooko di kan Serigne Abdoulaye fay borom ndimbal Serigne Abdoulaye fay borom Thiès Serigne Abdoulaye fay borom sociale yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci Tektal TV ak émission Tektal euh, ñu gën ko yaatal xewal dikk ngi dakk sëñ Abdoulaye Faye euh, àdduna wërngal këpp ñu ngi lay seetaan ci Tektal TV looy nuyoo ñi lay seetaan. asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa Thiès di nuyu waa Mën Nafaar di rafetutaay di rafetutaay seen teewaay bi ngeen teew ñëw sesima mm-hmm. mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Faye sëñ Abdoulaye Faye borom Medina Fall ci Thiès euh, ñu bëggoon a xam yow wàllum faj ak ñaan euh, nga xam ne que ku ne ngi ci biir lu ne ngi ci biir lépp ngi ci biir ñu di la wër pour bëgg indi la nga naan wax dëgg yàlla yàgg nga ci njëriñ kon fésal ko bëggoo ko ma la ah sëñ Abdoulaye kuy def lu baax dafa laaj ñu fésal ko pour ñeneen ñu bari mën a roy ci yow baax am na nag ñuy def lu baax nit di ko gisee ngi sal mais ku ñàkk a maanoo ciy nekk ñun daal leen bëgg bu ñenn ñi mayee ay xaalis grand théâtre ak yépp kuy def lu baax moom nga fésal ko ban gis ne kii royukaay la ci lu baax ci yoo xam ne kay acte loo xam ne yoo bukk toog émission bi sax mais comme dafa dëppoo social nitu social parce que nii may defee émission yi ku ne dinañ ma kii am na problème bii kii am na lee kii am na lee man dama naan ah diwa nga ne jëlal numéro bi ne ko maa leen boole lu mu man mu def ko sëñ Ablaye euh, euh, Ablaye Faye léegi li ñu bëggoon a xam nag wàllum faj ak ñaan à part social bi dinaa ci dugg ci biir émission bi pour nit ñi mais wàllum faj ak ñaan loo dond la loo jàng la lu la yàlla may la aw fit la wala da ngaa gis ñëpp di ko def nga ne xaaral nga def ko wala da ngay wut xaalis wala da ngaa yërëm nit ñi te yàlla tax lan moo la ci dugal daal ba tax nga sañ a dugg ci émission tegtal ci biir tegtal TV di yëg yëkkati sa xam-xam. waaw affaire ñaan moom comme ni mu ko waxee xam nga sama maam. am na mm-hmm. loo xam ne yàlla da ko mayoon. Mm-hmm. muy jamono Senghor. Mm-hmm. gis nga jamono Senghor oto day jafe. oto day jóge fu nekk ndar Dakar fu nekk ngay dem ba côté Këram Jaale mooy ñoomare yooyu gannaaw yooyu côté yooyu gannaaw Louga. nga mm-hmm. ñëw ba foofu di ko seesi. Mm-hmm. moom nag bu mu gaañoo moom yàgg na xëy na boobu mun naa wax sax gu judduguma na sama papa mi ngi am fukki at ak juróom-ñett. Mm-hmm. wante parce que moom danoo nekk si benn dëkk mu ni de am na loo xam ne dafa xew ci dëkk ba. am na xale boo xam ne am na lu ko jàpp foofu. te bu eggee si dëkk ba noonu lay deme man nag mun maa wax xam-xam boobu foo laa foo foo laa ko jëlee. Hmm. wante nit ñi dañuy wax yenn saa yi boroom xam-xam yi dañuy wax li si li si maam set moo koy jël. Hmm. kon daal doon nga ci moom. mun naa wax lool mais kan mooy sa maam sax sa maam mooy kan moom. Omar fay Omar Faye Omar Faye Jam Siré boo xam ne dafa dëkk si Sambar dëkk àll ba ba noonu gannaaw Louga yooyu. Hmm. parce que kooku moom it amoon li ma Euh, mairie bi ak euh, paa bi ni ñu ma nettali mooy si moom mm-hmm. demoon na da jóge si àll ba mm-hmm. di jóge si àll bi di dem ki côté ñoomere muy foofu la doon deme daal di jënd seen soxla yooyu mu dajee borom oto mm-hmm. mu wax borom oto bi doo ma yóbbaale borom oto sa ni melokaanam nu mel bi wax ko man du def ah, waaw nga ko du yóbbaale dof léegi nag mu nga ah mu jël benn euh, mooy affaire euh, day day béy yooyu mooy day béy yooyu. mooy ndéef daal ndéefu béy. ndéef béy. dama hmm. nem na si kàddu yi. waaw ah, mu jëy loolu. Hmm. tifli si li muy tifli sànni ko si motoor bi. kooku def loolu. waaw oto bi tàkkul. Hmm. mu dem ba fu mu dem ba ñëw ba wàññeeku kook kooku ko mu def li muy defaat daf ko si oto bi tàkk parce que. xam-xamu weñ dafa am. comme ni xam-xam tul amee nga koy jàm te nit nga koy jàm te du dugg loolu amoon. ba si dëgg naa si xam-xam boobu boo jëlee si benn vis oto bi sax nga def ko si benn oto oto boobu day paan rek. loolu si si nettali laa ko dégg. Mm-hmm. waaw te sama juddu. Mm-hmm. moo tax mbir xam-xam. Mm-hmm. yàlla mooy joxe xam-xam ku mu ko sopp muy mm-hmm. xam-xam bu sell laa wax wax ma nag xam-xam boo xam ne. Mm-hmm. nit si boppam moo ko créé boppam pour wut ci xaalis. Mm-hmm. man jàpp naa ni li may def wut ma ci xaalis. moom yow naa ci waaw léegi xam-xam boobu xam-xam boobu sama maam wax dëgg yàlla yoroon na xam-xam boobu. wante man dama nekkoon nit daara. nitu daara. léegi mus naa yawaani. Mm, foo jànge. Louga laa jànge si Thierno Djibi. Thierno waaw. jàng ba wàcc wala mokkal. <laughs> en tout def naa si lépp. Mhm. bu mu fa jugee. Mhm. may ja may may yawaani parce que fi nga yawaani ak si daara fu mu nekk àlla am na armeer mhm. man yawaani ba sonn tëdd benn côté nelaw fa. jóge fa ay côté deux heures jàpp trois heures ñëpp tëdd. te diggante fi nga ville bi rek ak si euh, daara bi nekk rek. àlla mu ngi lëndëm kinis amul benn làmp. may dox dox dox dox dox dox jékki-jékki sama karaw bopp bi taxaw sama yaram bi sedd. Mm. sama mu tàng. yi daa mel tiit noonu lay mel de wala. waaw wante dafa am dafa am loo xam ne ah. yaa ngi dox. xooloo jékki waa jékki am na loo xam ne mu ngi lay yëgal loolu ñëw. Ah. parce que boo tiitee noonu la lay def waaw ku tiit ne système ku tiit lay wax. ni waaw système bu tiit laay jinne moo ma romb noonu. Mm. muy traversé si si tali bi di jëm si coté armère ya mu ngi may xool ma ngi ko ma ngi ko xool wante yóbbul sama fit. ban melokaan la yor. melokaan bi mu yor mooy ñaar tànk yi moom laaluñu suuf dañu ëppante. bu lay bu lay bu lay xool buy dem. gannaaw lay xoolee. Hmm. gannaaw daal gannaaw lay doxee. gannaaw gan waaw waaw. Hmm. waaw kanam bi dañu di féeri gannaaw wante mu ngi noonu doxee mu ngi noonu doxee ba mu dugg si biir armeer yi ma ngi koy xool ah, faalewu la wax faalewu ma xanaa xaw ma man xaw ma boobu maa gën a nekk xale hmm. parce que boo xoolee mu ngi romb hmm. ba mu romb ma ba mu dugg fa ma taxaw ngelaw ba dëgg jékki-jékki ngelaw bu tàng jër moo ñëw si man jékki-jékki ngelaw bu sedd mooy ñëw si man tëru nag tiitu ma si wax dëgg yàlla affaire waaye après si laa commencé foofu nag. Mm. di jékki-jékki di gis ay images. Mm. di xool affaire bi daal mu def ma lool loo xam ne demoon na ma def ma comme genre feebar après. ma mm. gis eh, image ni si bind alxuraan di min si kaw ma wax ko si ni mi si wax ma noppil. noppil waaw ma jékki-jékki di gis ay affaires yoo xam ne mooy lii wante affaire bi kanam bi kanam comme genre kanam béy la yor. kanam may xool ma koy xool mu romb noonu dem. wante wax dëgg yàlla defuma dara. defuma dara defuma dara. li nga léemu woon mën nga woon ko wax pour ba nga mucc noonu. non man léewu ma sax. Ah, ah. yàlla xam ne léewu ma sax man kay yàlla rek mu ma dimbali. Mhm. mu romb ma xëy na woo la mu nekk koo xam ne doo dem yoonam. mu mhm. tasee man en tout daal moom daal si laa commencé di gis ay images. di gis te boobu gën koo daara ji. donc boobu gën ji. maa ngi ay images. di jékki-jékki ba si image boobu xam ne tey xëy na yàlla lool la ma def. Mhm. bu ma ñibbisee ma nekkoon ci situation bu metti mhm. nekk di dund lu metti bu añee duñu reer bu nekkee duñu nekk lu metti mhm. waaw bu tawee ndox bi di dugg ci suuf lal bi maire bi di génn yol peelam mhm. man ma génn ma nit mu yol di gasal ndox bi muy jàll am ngay mag man maay taaw waaw am naa mag bu jigéen léegi bu mu defee noonu ma toog benn guddi mu nekk lu métti parce que yenn saa yi trois sax da am boobu da koy am mm-hmm. ba jour boobu sax trois cent bi nga xam ne moom laa mujjee jënd reer mm-hmm. ku tudd gaam ku dawal voiture moo ma mm-hmm. ko abal ma jënd si reer daam gaam moomu moo ma ko abal ma jënd si reer jamono yooyu nag nekk na loo xam ne ni ngi dund lu métti wante xam nga àdduna boo si nekkee di dund lu métti yàlla day dikk parce que nit ku nekk boo muñee rek yàlla dina la dimbali. ku muñ muñ. Mm-hmm. ma toog jàpp ba set julli ma ni yàlla fekkee teraanga ak alal ak xam-xam moo tax nit ñi fonk la ay yooyu maa la koy ñaanal maa ngi maa leen koy ñaan nga may ma ko ma julli ay rakka ñaan mm-hmm. ma koy ma ko ak xam-xam boo xamee képp ku si ñëw di si faju ak ñëpp di def lu baax li waral ñu naan borom dimbal la waaw mhm. sëñ Abdoulaye fay borom dimbal bindal ma ci écran bi sëñ Abdoulaye Faye borom dimbal balaa may sori sax euh, bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV di ngeen abonné Tektal TV bindal T E K T A L espace TV abonné mooy fu bés bu doo ci fay dara Tektal TV ci YouTube bi ah numéro Serigne Abdoulaye Faye borom ndimbal numéro bi 77 277 cinquante soixante et un soixante dix ngay def ba pare deux cent soixante dix pour ku déggul daaj la deux ak ñaari sept cinquante ku déggu daaj ak ku déggu daaj yëpp dina ko mën a bind soixante six ak un la soixante dix sept deux cent soixante cinquante soixante et numéro bi leer na nañ bind bi leer na nañ sa bët yi bu amee problème nag nga faji ko waaw numéro sëñ Ablaye fay borom ndimbal nekk ci Thiès quartier Madina Fall numéro bi nag am na WhatsApp yow mi nekk ci réew mi wooteel appel normal ki nekk bitim réew woote appel normal bu naree jafe na ngeen utiliser whatsapp bi vocal yi nag sa àdduna bi yëpp mënul xaj ci benn vocal nga tënkal ko rek parce que dafa am yeneen soxla yu mu kii kum jëflanteel tamit nga yebal GP euh, wala kenn sa mbokk mu jël si ko jox ko GP mu wax ko nu mu ko utiliser. kii nag xewal la pour yéen pour ngeen xam ko moo doon sëriñ boo xam ne que nee na ba fii may wax ak yow na comme ma euh, triant yi dinañ ko may mu continuer mu parce que def lu baax dafa jafe ci dëkk bi. mais nee na daal li mu yéene ak li mu bëgg ba fii muy wax ak man ku mu ñaanal moom balaa sax xaalis di dugg dangay gis ba pare gis résultat ba pare loolu la yéene kon nag sëñ Ablaye fay lii nga wax ni moom neex na mais dafa am triant yoo xam ne ko bu ko nar a def lu baax rek ñu indi la tam ñu doon sëriñu courtier sax dem engagé bagage yi jàmbur laajte xaalis wut si la moo tax man dama bëgg daal ku soxla moom na ci def dara moom wax dëgg yàlla parce que nit ñi dañoo bëgg lu yomb de dëgg la danoo bëgg lu yomb trop. dëgg la te booy def lu baax boo gisee ma wax ko ne ba nii tey nii génnagul ci loolu ëllëg bu ci génnee ngeen xam ne ñu juba di leen ko teg mais moom lii mooy yéeneem. dëgg la kon sëñ Ablaye Faye assurance bi nga àndal ba ne yow koy ñaanal day gis ba pare soo ko fay loolu foo ko teg wul sa bopp la wala man li nga yor la. loolu xam nga comme lu ma la ko waxee. nit moom boo nangu la nit ki ku nekk li la yàlla may rek gëm naa ni kenn du sonn. Mm-hmm. yàlla may la. ma ñaanal nit ki ba mu gis mu doog a fay. Mm-hmm. parce que nekk naa koo xam ne bëgguma lekk xaalis kenn. Mm-hmm. bëgguma nit ki ku nekk am nga tas yaakaar dafa moo gën a bon si àdduna. Mm-hmm. yàlla si tas yaakaar mooy nit ki yaakaar la amoon ay problème ay jafe-jafe. mu ñëw yow sëriñ bi nga laaj ko loo xam ne attuna ko mu dem leb. wala mu dem tay këram. mu jël ñëw jox la. te leer na yow sëriñ bi li nga koy wax li nga koy wax. amul kon da nga ko yokkal beneen coono bu bokkutul coono bu taxoon mu ñëw fa mm-hmm. moo tax tas yaakaar yooyu moom dama ko ragal trop mm-hmm. parce que ku ma ko defoon du ma neex nit ku nekk boo xoolee sa bopp ku comme ni ngay xoolee sa bopp rek nit nga mm-hmm. ko koy xool nit ñi gëm naa ni doo sonn moo tax nit ki dama lay ñaanal ba nga gis nga yëkkati li nga may jox nga jox ma ko ki ma ñaanal nga gis nag boo ma joxul waaye ñi lay war daal ñi nga xam buñ la war a ëllëg ñu soxlawaat la moom la ñuy def dañuy ñëw feebul tax na ah ñoo xam nga parce que am na warkat yoo xam dañuy yebal kaneen nag demal jàmbaar dañ lay war xam ne sañ ñu laa gisati ñu yebal ne ko demal de moo ma fajoon de moo ma kii loolu am loolu loolu day am wante bari nañ bari dafa am ñoo xam ne danoo gore hmm. bu ñu jàppee du nu baax hmm. te lépp loo xam ne waxtaan ngeen ak ñoom ba nga juboo comme hmm. ñoom comme ay dof si yow man din may jox deux cent millions. cent mm. millions parce que foofu laa bëggoon ñëw li mu dimbalee rek am na ñooñu buñ ko amoon daw ba rëq mi ngi mayee oto mi ngi mayee terrain mi ngi defi social am na ci yoo xam ay nag ak ay lu ne am na image yoo xam ne sax naa leen ko wan ma bëggoon xam yow da ngaa yor jinne ji joxe xaalis wala dangay ngay luxus xaalis wala comme yow laajoo dara ba pare li nga yor nii li ngay maye rek am ko jafe secret bi lan la ko wala da nga yor secret nga man li ma yor. Mm-hmm. duma ma lukus du def lu araam mhm. du ma jaay yàmba mhm. duma jaay dorog mhm. du ma def barassement de d'argent li may def ku nekk sañ na boo nekkee sa réew nga def loo xam ne lu leer la loo xam ne déppoo na ak sa diine te loo xam ne yoon tëriwu ko Mm. gëm naa ne boo koy def jàmm rek ngay am non am na yoon naa ci ñëw ci kanam sax dama bëgg a ñëw ci xam ne ñiy seetaan tegtal la waa extérieur am na ñoo ñu ngi dugg ci métro yi tubaab yaa ngi leen di jàppee dof sax ndax dañu yokk seen casque bu baax ndax tegtal TV mel melokaan boo xam ne que àndatunoog seen sago ñooñu fi nekk lim soxla nag dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ku bëgg kaaraange bu wóor ba mel ne balu tengs ku dóor mu dellu belende ku bëgg gettaru ba mu saf-sap daal comme Afrique la nekk toog leen foofu di tubaab tubaab ba sànku rek Mm-hmm. kaaraange boobu sax laa la bëgg ñëwal. Mm-hmm. ci lu yàggul koo xam ne dafa nekk bitim réew. Mm-hmm. wante man xaw ma. en daal waxoon na ma ma wutoo galaaj boo xam ne. Euh, kenn du ko gis. kenn du ko gis. ma waxoon. parce que moom li ma li ma waxee dama wax meew lay jël. yóbbu ko si beneen usine. ba bëgg nun koo gis ko. man nag xaw ma. wante. li ma jàpp ni sama xel dama jàpp ni euh, nit ki fekkee loo xam ne meew la mhm. lan ngay bañ a nëbbu lan nga nëbbutu pour nga jël ko si isin boobu yóbbu si beneen usine nee na patron bu ma ko yëgee da koy dàq man xaw ma man xaw ma xaw ma xaw ma ba xam mhm. sama xel moo ñaaw xaw ma ba xam meew la wala loo xam ne gaa yi ñu koy tere la muy li nuy li ñuy mhm. utiliser man xaw ma oh. waaw en daal bi ma waxee le commencement ba nu du ma fen dafa naa ko ñaan ba jox ko li ma koy jox. Mhm. ñi nekk si frontière bi dafa leen fekk nii nelaw mu romb leen dem. dafa <laughs> naa ko la wan man ba léegi laaj naa ko yow est lii meew la mu ni ma meew la man nag sama xel dafa ñaaw mun ma mhm. man lu ma leeru man xaw ma mhm. ne am na sañ-sañ sa xel ñaaw est-ce que lii meew la. parce que mais xanaa doo seet kat am seet kat nga seet. xam nga da ngay seet. da ngay seet wante bu damay seet waaw ah, waaw kon dinañ fi ñëw kon ci meew bi. wante xam nga def man an ko daal wax na ma mhm. te ñin yëkkat na yëkkat na li nga xam ne moom la waxante moom jox na ma dëgg yàlla mhm. finu ma wante xaw ma parce que wante defal naa ko xam-xam moom moom gis na moom doom gis boo xam ne moom nit romb na fi muy romb <laughs> bokk na ci ñuy joxe ay deux cent millions yeeg yooyu waaw man sama gars yi yor seen i deux cent mille ak cent mille kon baa duñ ñëw duñ fa doon dara non <laughs> moo tax moo tax xaw ma wante mhm. en tout daal li may wax mooy la may waxaat rek man bëgguma ma kon daal kaaraange moom firndeel na ne moom kun bëgg a liggéey ak kun liggéey ak yooyu yëpp ku ñëw ci yow mucc bu soobee si katamu mucc wante man li may wax li may laase mooy mhm. képp koo xam ne yaa ngi luubal kuy luubal bu la jege wala yaa ngi sàcc wala yaa ngi def loo xam ne dama dañ koo tere mhm. jarul nga ñëw si man jarul nga ñëw parce que boo gisee ma leeral nii pour ñoom ñi xam parce que man du ma bëgguma lëkkaloo mhm. ñi ni wax ay ay ay ay ay ñu setul ñu daal waaw ay dealer ak yooyu ah. ma ko Mm-hmm. man xëy na ay dóorkat ak yooyu man li ma bëgg mooy lu set parce que bëgguma lu tirima sama der mm-hmm. moo tax ni nga gisee ni damaa dal damaa teey te yàqantuma sama wërsëg mm-hmm. parce que yàqamte wërsëg mun na mun na la dugg loolu loo xam ne ëllëg si biir da ngay rëccu moo tax ma yàqantuma man lu ñëw rek baax na te maa ngi sant yàlla bu baax li ñëw na yàlla gën a barkeel comme li ngay may am na ñooñu bu ñu amoon seen capital <laughs> kenn du dégg ci dëkk bi dinañ fatt nit ñi kor klaxonné ci dëkk bi mel na ñoo moom dëkk bi yow nga koy may toog ne tekk moom kon yàlla na gën a barkeel rek parce que mm. wa iz ulna lil malaaikati asjudu li aadam fasajadu illa iblis mm. aba wastakbara wa kaana kaafir lan moo daloon seytaane dafa rëy parce que bu ko maam ak bu yàlla waxee sujootu aadama ak aw dafa rëy moo tax sujootuwul hmm. moo tax man rëy baaxul parce que boo rëyee rek bu yàggee dangay naa naan bu yàggee nekk sax kenn mënul rëy lu moo fi am yàlla rek rëy <laughs> ku ku nelaw fàtte lu xew de waaw moo tax ma la loolu man du ma rëy man du ma rëy lu dul damay def lu baax rek man loolu moo may intéressé non lu baax le moom dama ci ñëw kon léegi kaaraange moom ku bëgg ay càngat la wala suuru wala. lépp la rek. sa mm. dépend si sa seet bu ñu la seetee ba pare comme lu mu la ko waxee. Mm-hmm. parce que koo xam ne man comme lu ma waxee man bu may fu ma neex laay tukki du ma yóbbaale dara. barke rasul fu la neex kon daal xam-xam daal ci bopp lay rek. yàlla xam na ni. Mm-hmm. damay jàkkaaru ay seetu sama téléphone. te teel a écran yi. Mm-hmm. plafond. karo di la seetal di la wax loo xam ne lépp lu ma la wax da nga teg sa bët. kon yow même sa téléphone bu réeroon doo ko laajte doo ko seet. doo xam fu mu nekk non dama naa xam fu mu nekk. Mhm. parce que loolu daloo na ma foofu. Mhm. wante man dama la wax li ma am. Mhm. li ma yàlla jox aajuwul yor téere aajuwul yor dara. ay e, image rek laay gis. di la wax lépp lépp te lu ma la wax du dañ. du dañ nan la ñëw ci seet bi. waaw ah, kay li ma bëgg ñëw kay kon ku bëgg kaaraange ku liggéey ak ku bañ ñu liggéey la ak ku gëm di liggéey di tubaab tubaab lu ba sànku. ku balaa ngaa gëm ne Afrique la nekk nag laaj ko chef seen kook Drogba ba mu ko fekkee Chelsea ba xam foofu la mujjee yëngal de Afrique la nekk jóg leen seen bopp di tubaab tubaab lu ba sànku ah baax na kon toog di critiquer nag sëriñ nag kenn du ko bëgg di ko namoo moom waaw da naan ah man de man yàlla rek doyloo naa yàlla de ak ki nangam fekk ñëpp a doyloo yàlla nag mais jóg ñaan lu ci la bokk de ku ku contrat bi waaj jeex wala ku ne waaj a dàq wala ku affaire kon liggéey ba mënoo am liggéey di nga xam ne Afrique la nekk jóg leen seen bopp kon kaaraange bu wóor sëñ Ablaye Faye borom ndimbal nee nag ku ñëw incha allah yor na ci càngat yu saf-sap wala lu jëm ci kaaraange léegi nag sëñ Ablaye ñu ñëw nag ci bayra bu saf-sap nag ku ko bëgg nit yi nga xam ne defuñu kenn dara mel na lu soof nit ñi nit ñi nga xam bu liggéey lu baax kenn du ko gis football kat boo xam ne bu tojee match bi day paase kenn du ko tudd maam daal mbër moo xam ne bu daanoo ba pare ñuy tagg ka daanu di ko fàtte ko ñàkk bayre ba nga xam ne am bayre nag mooy waral muy ñëw ñu naan may leen ko mu ñëw ñàkk bayre mooy ñëw mooy waral ngay ñëw maa ngi ñëw am bayre mooy waral nga agsi naan agsi naa ñàkk bayre mooy waral euh, agsi naan agsi naa am bayre mooy waral ñu naan may leen ko mu toog ñàkk bayre mooy waral naan may ma ma toog kon bayre lu am solo la jóg leen seen bopp de waaw ku bëgg bayre bu saf saf nag nga xam ne que lu ci ëpp sax bu dee góor la c'est rare mu bëgg jigéen mais jigéen bu dee jigéen a koy bëgg bu dee jigéen la c'est rare mu bëgg góor euh, mais góor koy bëgg euh, bu dee liggéey yi dañ koy xëccoo ci sociétés yi fu mu war a dem te tamit fu mu dem day waxuma bayra tamit boo xam ne que dañ lay coow rek te doo yor dara bayra bu ak xewal daal ku bëgg bayra bu saf sapp nag loo ko mën a xam nga comme li nga waxee hmm. bayre hmm. bayre bayre ku bàyyam dundul nag sa fekkee sa papa dundul. xëy na fekkee yow avant mu fekk mu ngi doon dund fekke na sa njëriñ. Mm-hmm. gëm naa dina ree. Mm-hmm. ree kumpa la. parce que xam nga euh, nit lépp looy def da koy njëkk a. da nga koy na tàng neex tegtal a suuf moo dàq li ci kaw dama leen koy wax rek abonné leen tegtal TV sëñ Ablaye Faye borom ndimbal mooy yëngal ci bayra la toll bayra bu saf-saf. Mm-hmm. xam nga. ñaan dafa commencé. si ñaar waajur ba pare. say waajur ngërëm bi la. ngërëm ba pare nga doog a dem si ku la doy mu mm-hmm. ñaanal la. Mm-hmm. moo tax ma il faut sa papa ba pare mooy mën a kontaan si yow na bëgg si yow mm-hmm. parce que man du bëgg client yi ñëw si man ba. moo moom leen wala tiral. bàyyi de nag am na. bu saf saf wala bu saf rek. bu saf saf am na bu saf saf bu sa bu dese saf am na. <laughs> bu dese saf kay moom bu saf saf bi lañ bëgg moom. waaw wante boo xoolee bayre hmm. dafa am loo xam ne da koy def boo ko defee si yow. Hmm. nit ku la gis day am si yow cofeel hmm. loolu bayre da koy def. wante na nekk bayre boo xam ne ànduwul ànd ak seytaane. àndul ak pexe daal pexe kon bayre lu am la. Mm-hmm. parce que bàyyire moom gëm naa ni bu la ko yàlla mayee mm-hmm. parce que yenn saa yi da nekk dangay gis koo xam ne artiste la mm-hmm. wala mu nekk leneen fekk amul bàyyire boo amul bàyyire loolu du dem du dem kon bàyyire lu am njëriñ la léegi ñi koy am ba pare ñi xam bu ñu tëddee bu ñu tëggee grand théâtre mu fees dell euh, seen téléphone mënatuñ composé pour woote ndax ñi leen di woo léegi ñu dem ba instant ñu libre ba nga xam na que nag dañu mujj jàpp ne seen téléphone seen piis bi baaxatul ci daanuwaat léegi bayre pexe la wala du bayre natt lu a lool daal. non xam nga bayre am na. Mhm. liggéey nag am na. liggéey ah liggéey. waaw mhm. kon kaaraangeeg bayre laa leen ubbil boo leen. Mhm. parce que tey mën nga nit ki di dem nga jéem xool ay pexe yoo koy def ba daaneel ko. liggéey ko ba moom lu mu doon wut. mu mën mhm. a bañ a sotti. Mhm. fekk moom amoon na bayre waaye bayre bi mel ni lu xaw a fay. Mhm. parce que liggéey bu bon bu yàggee sa yaram. day yàq. comme liggéey yi nga xam ni. loolu njàg ba war na ci xam dara moom artistes yu bari fay nañ waaw ñu na ñu bari tàkk na. liggéey yoo xam ne comme li xewoon taayel nag bi nga xam ne dañ ko suuloon si armeel nag bu ñu suuloon ci armeer. mooy bu ñuul boobu. Mm-hmm. dégg naa ni koy wax. wante lu dafa rafetul ci Facebook mais yooyu dafa ñaaw quoi yooyu moom place trompe bi sax toog fa jaru ko quoi. parce que nag bu ñuul boobu day lëndëmal mbir doomu aadama. ba li nga bëggoon doo ko am. Mm-hmm. baaxu si nguur. Mm-hmm. baaxu si ko yor place. parce que lu lëndëm loo ko doy alal dafa weex. alal comme nii la dafa weex taal. waaw alal ñuulu kukk. wërsëg ñuulul dafa weex. kon fekkee li ngay li ngay def da nga say jublu lu bon mm-hmm. nga jël lu ñuul kukk def li nga def suul ko si biir armeer mm-hmm. loolu baaxul surtout mu nekk loo xam ne day tëj gémmiñ nit ñi mm-hmm. wala surtout mu nekk koo xam ne da nga bëgg yàq àddunam wala mu surtout nga xam ne da bëgg mu feebar te du fekk di nag ji loolu lépp dafa dafa am moo tax euh, euh, gàllaaj lu am la ah Afrique la nekk de ah, tubaab tubaab lu ba sànku <laughs> ku ci dugg rek di nga wax lu set de dëgg la mais yow daal kon ku dugg ci bayra ak beneen ma façon bayra tamit mooy boo gisee parking yi ni jaay oto yi nii am ñu ci bari oto ya nga fa doon romb daaw yooyu fa nekk pënd poussière taw fa jóge am na ñoo xam ne location oto yi dox jaay oto yi moom ku yor saagam xëy naan wala seeg lay bind pour ñëw bind la oto nga jënd oto dem sa yoon yombul quoi te jaaykati oto yi bu nee ba nar a ëpp nit ñi problème day am jaaykat yi nar a ëpp ñiy jënd problème day am kon ku bëgg bayra bu saf sap jaay kër mu jar jaay oto mu jar jaay terrain mu jar jaay bu jóge Dubaay li mu yor ñëw mu jar te ko leb xeetu bayre boobu daal laa bëgg mu saf saf mbir yi dem cinq sur cinq waa bayre boobu am na parce que comme li ma koy yenn saa yi da ngay yor loo xam ne xam nga bayre bi nekku loo xam ne mhm. fii lañ koy toog di ko expliquer mhm. secret la secret non moo tax dañoo bëgg ñi ko xam rek bu xamee ñu jaar ci suuf nag ñëw mais nañ ko ci kaw war ne bu sa bu saf sap am na fii ci Thiès waaw ci quartier Madina Fall man xam ma man damaa yàlla damaa bind loo xam ne man du bëgg ma di ndamoo li ma yàlla may mhm. comme nit ñi ñu ngi koy defee man tax nga ni nit ñi wax ma xaw ma dara moo ma gën a xam naa dara. parce que yàlla moo yor lépp yàlla mooy mattali lépp. te te lii lii ma yàlla may. duma ko nangu ni wane ko si télé. wan ki nga xam ne damay jëflante ak moom. bu mu ñëwee ba yéegal ko si kaw fi affaire nekk. kooku rek moo koy gis. waaye ku dul kooku du ko gis. ko gis sutura. sutura waaw. moo tax tamit parfois nit ñi na ni bàyyi xel leen pourquoi sëriñ bu ñaanalee kenn. mu nangu ñu ne sëriñ bi war ko wax fenn ndax ñaan sutura la sëriñ nag bu amee defet sawaay ñu koy weeje yàq deram sutura mel ne sëriñ tamit bokkul ku ñu war a sutura ah sutura tamit nay am man ànduma ku bëgguma koy dil li ma bëgg kuy def lu leer nañ parce que tamit euh, mbër moom promoteur bu ko jàppale jàppale tëggal ko combat rek la man mais dóor yi dal ci kaw munu ci dara <laughs> kon sëriñ tamit il faut mu yor bagage boo xam ne que dina préparer question yi ak yëpp mais li ëpp solo communication yomb na man li ma por solo nit ki wax njëriñ jëf njëriñ nga ñëw fekk fa njariñ te jub ñëpp am jàmm sama soxla moom defe naa mbindeef àtt na ku mu ko tigi da nga woo say mbokk lu am ñu indi ko te moo tax kon yàlla laay doyloo te fas yéene def ci lu baax émission boo xam bientôt mu mat fukki at nag tam ñu ngi continuer di mel nii moo ci dëgg leen koy teg kon yàlla nañ daje kuy def dëgg di indi dëgg rek kon daal incha allah ku ñëw daal parking yeeg yëpp dina ci am lu kawe njort si kattanu yàlla ñu ñëw nag ci beneen biir sëñ Abdoulaye Faye boroom ndimbal li waral sëñ Ablaye Faye borom ndimbal nag après dinaa ci ñëw ci fin bi après mais sëñ Ablaye Faye borom ndimbal fi ma bëgg ñëw nag mooy rab yi rab yi xamuñu sëriñ see leen sonal xawma rab yi ñoo sonal asken wi ma daal man tribunal bu am bu at rab yi moom bu fi amoon problème dina am lan mooy rab ku rab jàpp ak ku rep faro rab coro rab ak rab lan la mën a yàq lan moo ci lan nga ci mën a wax ci rab. waa xam nga rab. Mm-hmm. lu am la. Mm-hmm. parce que rab mun naa nekk si yow. Mm-hmm. di la def loola xam ne loo teyul la. Mm-hmm. rab day jaxasee xel. Mm-hmm. ba mi ne luy jël sa xel. ba dootoo ànd sa sago. waane rab ak jinne ak rawaan. ak àndandoo ak day nekk si nit. ah ñoom duñ benn ay ñu bokkul lan tamit. noonu yooyu mën nañ mën nañ bokk fi ñu roote benn. Mm-hmm. wante loolu dafa am yoo xam ne de moom nga koy fajee. Mm-hmm. boo ko fajee mu parce que rab. yow rab ku nekk bitim réew nooy defam moom. da koy xool jox ko ay tetal. bu mm-hmm. ko joxee tetal mu wax ko defee ko nii def ko nii def ko nii. rab bi dina ko baax. parce que rab na ñoo xam ne bu nu tëddee lu nu gënt. loolu mooy am. ra seen rab moo leen ko won mhm. waa rab dafa am bu bon mhm. ak bu baax ah, bu baax moom jërul dem ci sëriñ moom non bu baax bi nga xam ne da dalay dalay lii da ngay ak moom ba du la du la yàqal sa ba bañ la mere la mere mhm. loolu rab rab da ko day def loolu moo tax rab boo boo fekkee am nga ko boo ko fajee rek yàlla mun na la dimbali nga wér nga wér yow càngat yi baa du càngat yoo xam ne nit ki day sangu année bi noonu non non non loolu loolu amul sens. Mm-hmm. nit ki kay faj ko rek ba mu wér. Mm-hmm. parce que xam nga comme la fekkee yow mi nga xam ne dangay faj am na foo xam ne boo toll moom bu fekkee affaire bi mu ngi wér. Mm-hmm. di nga xam fekkee du wérul di nga xam. léegi jàngat yi lan lay doon alxuraan wala sunguf wala. lépp laay boole man. lépp ngay boole. gaa yi nga xam dañuy sangu mais tamit dañuy jàdd yoon tamit nooy def ak <laughs> ah lu gënoon daal mooy. xam nga fi ma la. waaw waaw li ma li gën a rafet daal mooy. Mm-hmm. boo boo boo sangutoo li mel ni loolu baar. Mm-hmm. Euh, sobe gi daal nga teg ko parce que alxuraan ak sobe àndul. Mm-hmm. sax yàlla ko tere yow terewoo ko <laughs> waaw am ko daal rab daal. mais après sept jour euh, ñaata fan wala amu doo joxe fan. pour rab non man du joxe fan. parce que gis nga euh, joxe fan. boo joxe app. ku koy def rek yaa ngi mel ni yaa ngi bëgg jël place sunu borom. nit ki. Mhm. am nga droit nit ki ñëw yaakaar la ñaan ñaan la rek. Mhm. te nga ànd xol bu rafet nga bañ koo ndax. Mhm. yàlla dalee si dimbali mu wér. wante man àndu ñi nga xam ne dañuy joxe bis. dañuy joxe bis loolu que bis rek man du ma si bokk. bis yàlla moo moom bis. wan am nga li la yàlla mën a mu woon. wala ah lii de dina am. yàlla da lay wan lool. wante nit ki bu ko jox bis. parce que bis ba bu ñëwee rek amul lan lay wax sëriñ bi wax na ma loo xam ne deñ na. waxul dëgg waxul dëgg. kon nit ki boo koy ñaalal jël lépp nga teg ko si loxo sunu borom yàlla ànd si. et kuy encaissé. Hmm? bu ñu bàyyi lépp suñu borom xaalis bi kuy encaissé. waaw xam nga xaalis bi du suñu borom suñu borom du lu xaalis bi dara xaalis bi pour ñin la. waaw am na sëriñ sos dina bëgg xaalis tamit de. buñ bëggee bàyyee résultat bi yàlla pare encaissé xaalis bi tamit wante waa ji toog di xaar comme lu mu la ko waxee rek mm-hmm. na fekk lu lu neex suñu borom rek non man moom li ma neex ci yow mooy li nga ne nit ki day gis résultat pare soo ko fay man noonu laay liggéeyee mm-hmm. ba ñii nag yàlla buñ la kenn teg coono yoo ci génne mu continuer nit ñi bëgg ci yow ngay bëgg ci yow léegi nag seet seet laa bëgg ñu ñëw ci nag ba xam yow ki dàq seet ci àddina bi lan toogal wala ki dàq seet Afrique lan toogal wala ki dàq seet Sénégal lan toogal wala ki dàq seet ci Thiès lan wala ki dàq seet ci saal bi ñu la lan toogal seet fooj tol non man moom du wax man maa fi dàq seet mm-hmm. parce que comme lu mu la ko waxee rek xëy na yàlla mun mun na may keneen ko loo xam ne mayuma ko ci mm-hmm. seet mais sa seet ba bu ko toy yomb yooyu ñu naan ay yaa ngi yaakaar muy tas yaa ngi lijjanti yi mbir non man yaa ngi lijjanti yi këyit man euh, ku euh, euh, ana Mohamed Dakar kër goo dem daanaka taaw ba Mohamed la bu dee Touba taaw ba lu ci ëpp xaadim lay tudd bu dee Tiwaawan Babacar lay tudd wala Mansour nga ñu ne ana nangam rek day xaw yoom yomb ba mu ëpp daal. ma seete noonu ma seet image laay seete. image. damay génn li nga yor fi nga liggéeyee ak lépp. ah bon barke Seydina Mohamed Seydina Mohamed la waatal de. sallallahu alayhi wa sallam. kon moo tax ay image laay génnee. kon di seetlu ci yow mën ngaa dem boo xool néeg ba muy fanaan ci Liverpool. loolu lépp man jommal naa si ay nit. Ah ah. moo tax moom la man ay image laay génne image yoo xam ne comme nii may tegal écran moom laay génne bokkut du ma la wax ak lii lii lii dina la dama lay génne ba nga yow li ma lay seetal di nga xam ne li ma la wax leen lu am la parce que bon bi nga koy def yow ak sunu borom rek. yéen kon yow même ko boo koy seetal lu nekk ci poosam nga xam ñaataa ci nekk. loolu lépp de mu du fa àgg. doo fa àgg waaw en tout daal li nga xam ne moom ki nga xam ne wax na ma seetal ma. Mm-hmm. bis moo ko seetal dina xam man gis naa. kon di nga tudd tur sa seen no tur ma ko tudd. du tu doo tudd non du ma nga. léegi yow mënoon nga def leen comme exemple nit ki Barça soxla ko Real soxla ko euh, nga seetal ko wax ko bi gën. waaye xam nga loolu dama koy def. dama koy def damay seet gis lii dina am wala lii du am. Mhm. lii bu amee lëndëm lëndëm ma wax la lii moom. baaxul léegi mën nga doon seetal ba xam vingt bu mel nii. baa du fi amati mille 2020 bii moom bu jeexee vingt 2021 day neex carrément wala xam nga côté loolu gisagoo ko xam nga côté boobu ko te côté boobu bu mu si waxee ko rek maa ngi ñëw ko li ma waxoon si beneen sànq. Hmm, comprendre mooy gis nga ay xeet at. wala ay xeet leneen xëy na hmm. yàlla mën na la ko lii wante dafa am foo yam. Hmm. li des yëpp nga bàyyi ko yox daal ku bëgg seet seet moom xanaa da nga ciy fayeeku moom <laughs> seet da yóbbu temps de. waaye seet moom am nga seet moom du ñàkk. nga seet loo teg si loxo nit ki moo pour mu mën a gis lépp. du mën a ñàkk. wante li gënaaw seet laay wax mooy dama lay ñaanal ba nga gis nga doog a fay. ba doog a fay. d' accord mais léegi nan ngay dundee nag euh, Tektal TV nga xam ne que àdduna bi ñoo koy consommé dina la woo réew boo xam indicatif boo dul xàmmee fu lan lay woowee léegi nag euh, jot gi nga amoon moom faaw mu gën a metti ndax demande bi day day des ndax euh, wute am na daal Tektal TV fu ne la la woowee waaye di woowee ci àddina bi WhatsApp bi moom dina saturé ba xamatoo noo koy dundee léegi nag loolu ba farlu bi nga doon def ci nit bay am résultat loolu nan ngay def moom léegi. xam nga boo gisee li tax yàlla yombal ma mbir ma mënoo seetal ay junni junni nit. Mm-hmm. ne ñoo may woo. te ku mm-hmm. nekk dinaa la seetal. Mm-hmm. mooy xam nga fekkee da nga fekkee ay suuf ngay seete. def nii tomb tomb day jël temps. day jël fekkee seet fekkee yeneen yi. day jël temps ay ay wante man ay image laay jàkkaarloo gis di wax lépp. image yow nit ki mooy image bi moom ngay gis ay image laay gis si moom fu mu nekk rek dama ngi may tegal image ma wax la wax la wax la wax la lépp. li passé lim lépp lépp mu wax la te di nga xam li mu la wax. mosoo wax ak kenn ba mu yàgg mu ne noonu lii moom demewul nii wala. non xam nga seet yenn saa yi xam nga moom ma ah bariwul lu ma koy def. dëgg yàlla wante mun na mun nga nit ki nga wax ko ah est-ce que lii ak lii la mu wax noonu du lii la lii la. parce que am nga loo gis sa àdduna hmm. ñaar la. ñaar la hmm. da nga ko laaj bii la wala wala si bii la. Hmm. mu wax la mu wax la si bii la. moo ko boobu ak lii ak lii nga koy defee. wala bii ak lii ak lii nga koy defee.

ku dégg daaj ak ku déggul daaj yëpp mën na ko xam 61 6 ak 1 la sëñ Abdoulaye Faye nekk ci Thiès quartier Madina Fall numéro yi am na whatsapp nga fekk ko fi dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp sëñ Abdoulaye Faye borom ndimbal euh, dañ bëgg a ñëw nag ci Effenberg yi ci dëkk bi Effenberg yi mooy jigéen ñi nga xam ne que dugg nañ âge bi 40 ans 50 ans 30 ans borom kër tëleen ñu wër fu ne dugg fu ne mënuñu ko am amuñu xaalis am na ñeneen nag ñi ci gën a doon problème moo ñi nga xam ne seen bureau dañuy tëju seen oto dañuy tëju seen kër dañuy tëju resto yi ni dugg nag gaa yu bari jotewuñ fa ñooñu fu ñu jaar ba am borom kër Evenberg yooyu noonu noo mën ak ñoom pour ñu am borom kër xam nga dafa am nit ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne yàlla moo leen binne mhm. ba keroog ñi sangu suuf duñu am jëkkër mhm. te loolu dama koy gis mhm. am ñoo xam ne dinañ am wante il faut mu dem ba si kanam am ñoo xam ne. raw ñu am ñaari jëkkër loolu tamit day am maanaam ñu tas sa yaat. loolu loolu day am. Mm-hmm. waaye lépp boo ko xoolee nit ki nga xool rawaanam fu mu toll. Mm-hmm. nga xool li muy def boo ko jaalee si ay tettal wax ko li nga koy def lépp defal li ak li nga gis yàlla def. Mm-hmm. aajoom faju wante am na nit ñoo xam ne moom ba keroog ni sangoo suuf du nu mus a am jëkkër. du nu mus am jëkkër. loolu yàlla moo koy def. comme ni muy nii yàlla defee ngay nekk nga am fukki jabar wala nga am lu ko lii. te yàlla boo hmm? gis ma waxee waxante waxante nga am ko te yàlla du la may doom. Hmm. noonu la amee waaw foofu tam bëgg naa fa ñëwaale wàllu loolu na yàlla noonu la yàlla bindee nit ku nekk nga dund ba gën a àdduna te doo am jëkkër. Hmm. parce que lool seet moom yàlla day def yenn saay mu day gën a day day day nit ki loolu. kon daal ku bëgg borom kër moom bu ñëwee ba du yàgg comme yow joxe woo suuf. non mun naa bañ a yàgg parce que ba xoolee xam nga boo xoolee li may wax bañ a yàgg yàgg yëpp. Mhm. pour yàlla di ma si dimbal parce que yàlla bëggul ko xëccoo ak moom. est ce que mhm. xam yàlla boo jëlee léppam rek lépp loo boole nga bëgg wax ko am rek da koy gaawal. te mhm. doo xam lan moo koy sottil ma yenn saa yi yàlla ma yenn saa man damay jaaxle may wax man sama mbir yi lan la may lan laa mën a defal nit ba lan moo ma lan moo lan lan la yu loolu yooyu saay da ngay yéemu daal damay yéemu si loolu mm-hmm. fekk loolu yàlla moo koy def si nit ki mais mm-hmm. ni taximaan bi nga xam ne dama daje woon moom mm-hmm. tey mu ngi may defar teraanga bu nekk amu woon dara munu woon dara ni tase boobu ma di maa ngi doogo tàmbale ni tase sunu sama biir biir otoom mu yóbbu ma ma dem ba bu ko bëgg a fay mu ni déedéet jëlal mu dégg may wuy téléphone may wax ko jëlal da ngay jël sangat bi dafa ko nii dafa ni ma xam ne man sëriñ laa mu ne ñaanal ma man dem ñaanal ko tey yàlla def na mu nekk milliardaire tey hmm? waaw mu ngi faj gum ak gàcce yu bari Cheikh Soumane fu nga nekk ah. Sénégal Sénégal fii la dëkk. Hmm? nga boole ñu. <laughs> am problème moo tax hmm. gis nga loolu gis nga lii yàlla def noonu. xam nga loolu yàlla mooy lay dimbali nit ku nekk yàlla xam nga jub jubooleel dafa am mm-hmm. moo tax nit ku nekk bu ko xeeb mm-hmm. ku nekk sa wet bu ko xeeb mm-hmm. parce que yenn saa yi nga nekk nit ki gudde bëccëg mu dem wala nga am problème nga dem mel nit dafa yóbbaale sa wërsëg te yenn saa yàlla day boole ay nit ay nit seen lépp ànd seen juboo ànd ba si xale yu ndaw yi ba si lépp boo gisee Sëñ Saalu bëggoon ay xale. Mm. dafa am li nekk si xale. Mm. te nit ñi xam na ko. te nit ñi xamuñu ko moo tax mu bari ci yërmande ci ñoom. moo tax mu am si ñoom yërmande. te yow ngay borom dimbal borom dimbal nag bu ko déggee mooy yàlla de mooy ni yàlla bëggee ku koy jimbali ci jaamu yàlla yi moom moo waral mu jël yoon boobu di def lu baax am na sax lu ñuy xool ñëwaat. ñu def Abdoulaye Faye boroom dimbal euh, nag yaa ngi nii di dox ci social mu doon lu am solo ndax. réew moom boo ci nekkee danga war a doon njëriñal réew mi te bañ a doon posenu réew mi euh, kuy def lu baax rek daanaka président nga ca wàll wa nga nekk kilifa nga ca wàll wa nga nekk kon euh, bu kenn di gis kuy def lu baax nga naan nga koy gisee sal wala nga koy gisee leneen lu mu mën di doon daal lu baax nañ ko fésal ku ci mën a roy roy ci ngir lu baax jëm kanam bu baax a baax ndax am na ñu soxla ndimbal trop kii di sëñ Abdoulaye fay borom dimbal sa nag yi moom macha allah euh, kon daal yàlla nga gën a mën a dox ci social ku koy def daal yàlla la yàlla gën a dimbali sëñ Abdoulaye fay boroom ndimbal xew dikk loraange dakk tegtal. jërëjëf euh, sëñ Abdoulaye Faye borom dimbal image bii nag li waral ñu wane ko mën na bañ a dëppoo sartu émission yi sax mais wax dëgg yàlla gis nañ ne sëriñ si fii Sénégal. instant bi ñoom ñoo ak man nañ ne ba waa 2002 te dëkk bi ñoom ñu bàyyi mbër yi te dëkk bi bàyyiwul mais xaw a bàyyi te yi sëriñ see kii kuy def émission sax boo duggul ci sëriñ si bës bi day des ñëpp ci sëriñ si la ñuy wax ak seetkat seetkat yeeg yu mel noonu. domaine bi nag qualité bi mi ngi ci Tektal TV léegi nag ñu ñëw ak euh, sëriñ si comme ñu ngi leen di coow wax dëgg yàlla seen lu baax dañ ko war di wane ndax ñeneen di ci roy xam sëñ Ablaye Faye léegi yow wenn nag rek yow yoroo nagu xusma ñàpp yi quoi ngan di nag yi nga yor ci ay yudul jeex di ci joxe tam xarit tam tabaski ngay joxe xar di jël am na benn li ma ci gën a neex sax xale boo xam ne que wanewun parce que nit la mënuñu ko wane mais ku amoon problème mu feebar boo xam ne que warul fajoo Sénégal nga jàppale ko ba mu dem bitim réew def ci lu ëpp 6 millions euh, ndimbal boobu moom wax dëgg yàlla bëgguma sonal sa kër parce que ñi bari problème bari na mais damay wax pour ñu xam ne kii li waral ñu naan borom ndimbal social bi mu def la nag yi moom moom moom est-ce que duñ la tuddee taalibe Cheikh Béthio rek wala. <laughs> ndeysaan. <laughs> non Cheikh bi lan moo la ci kii maanaam mm-hmm. coono yi nga doon nettali. Mm-hmm. temps yi la 302 reer te la. Mm-hmm. Euh, yërmande boobu moo la topp. wala ba si si Cheikh Béthio bi nga xam ne moom nga tudd noonu. na ko yàlla xalal aljanna. amiin amiin te njabootam barkeer ak uh, njabootam am jàmm ak taalibe yam yëpp wax dëgg yàlla parce que joxe ñam lu baax la te moom wax dëgg yàlla da joxe ñam rek te ko te dëkk ko képp kuy joxe ñam doo torox mukk mm-hmm. te sa njaboot du woon moom ku ko boolee mburu baalu la ko sax ndax mburu moom bu doyul la nga koy booleel te moom da doon doy wax dëgg yàlla moo tax bi nga ko tuddee mm-hmm. sama xool dafa sedd si moom wax dëgg yàlla waaw ah, gétt gi nga jiital kat moom ku ko gis xelam sa xel xelam ci moom <laughs> non gétt gi mm-hmm. yàlla def na man maa génne sama onze million mhm. jën si nag yi six cent mille yi quatre cent cinquante mille. Mhm. yi cinq boo gisee ma def ko. Mhm. def ma ko pour ngistal. def ma ko pour wanewu damaa xam ni da ngay toll si ay jamono yoo xam ni. Euh, looy jëndee ndawal. dalay dalay tëx te gis nga lu mel ni événement. tombé euh, feebar bi am. te ku nekk mun du ñëpp ñoo mun a jënd ndawal. te am na ñoo xam ne mun nañ am cere ji waan duñ am sax ni ñu ko defee. parce que doole yamul mhm. xam boo ko defoon tam xarit kenn mais ko def tabaski def kii def def yeneen ci suuf yoo xam mënuñu wax lépp. parce que tabaski bi boo gis ne ma jënd ñaar camion xar joxe ko. Mhm. ba mu jeex ma tam xarit ñëwaat ma def ko. Mhm. doo def lu baax pare. di si am lu bon di ci am lu bon boo defee lu baax yàlla hmm. yokk ko kon daal borom ndimbal sëñ Abdoulaye Faye borom ndimbal yàlla ko yàlla gën a dimbali ba mu gën a mën a dimbali askan wi kon loolu moo indi sëriñ Abdoulaye Faye borom ndimbal ci Thiès mii ne Thiès ku dugg cees Thiès di warub sëriñ moom lay seet sëñ Abdoulaye fay borom ndimbal boroom social jàppale askan wi ci saayir ak baatin yàlla nga ko gën a mën a xewal dikk loraa nga dakk ah waa léegi nag kër yéet oto yeeg yooyu nag moom moom moom la ñun après ëllëg dinañ jël suñu nga loolu comme parce que tegtal waaw waaw a sax bitim réew fu ne defi ji émission ak sëñ Abdoulaye Faye. man yàlla mooy defu man sama teraanga. Mhm. képp ku ñëw booy sa xajee ma yëkkati jox la. ndeysaan. bu ma la jox oto mun naa jox kër wala loolu lépp yàlla moo ko am nga lépp. loolu lépp gën a barkeel daal. loolu lépp euh, ndimbal suñu borom la. Mhm. parce que man de moom mais fi may waxee mooy nit boo defalee nit bu baax lu baax jàppaleel ne defaloo ko moom kese de ak askanam boo déggee sëriñ si may invité sax parfois damay sóoraale yenn laaj yeeg yëpp dinaa laaj pour ñu xam ne diluñu mais damay sóoraale ne ki nga invité moom ak famille yëpp nga invité. am na nag ñoo xam ne que bu ni laaj dañuy bëgg daaneel ki ni laaj ki leen laaj tam bëgg leen daaneel ñaari jël ku ciy gañe amul njëriñ man li mu bëgg mooy wax njëriñ feeñ ñu mën a xam ne fii njëriñ nga fu ñu wuti fa. moo tax nag fenn laa bëgg ñëw yow am na benn football ci wàllum football laa bëgg a ñëw. football boo xam ne football kat boo xam ne que bi mu nekkul ci dara mu leeral na dix mille tëna ko boobu nga nekk ak moom ba tey milliard lijjanti ko yomb ko mu continuer wéyal kóllër gi ngeen am fu lu mu xat-xat faaw mu jokkoo ak yow lu mu xat-xat mu bàyyi la xel lu ko nit ñi wuti wuti mu mu yemalewul kenn ba xam naa sax am nu mu demee feeñ gi nii sax mën na ko bañ a gënal daal ndax euh, kuy ku war a jariñ ak ku war ku war a jariñu moom kenn waru ci nëbbutu mais sëñ laay fay yàlla la yàlla fay mais sa waay tamit kon kontaan na de léegi histoire boobu nu mu demee parce que ñi ci bëri bu ñu jàppee yow nawetaan euh, wala bin nekkagul ci dara une deux mën nan la buñ tekkee mën nan la wor ñii tamit balaa ñuy àgg fenn mën nan seeti keneen parce que am na ñoo xam na que tamit dañuy yéeg rek changé jikko ak yooyu daal fubalkat boobu moom boo doon tënk tur bi fu mu commencé L la walla M la wala N la ak sant bi S la euh, wala daal footballkat bu mag la daal du footballkatu falaa falaa yi nii. non man. Mhm. man bëgguma di wax tur. waaw di wax mais nga côté rek. côté non <laughs> parce que xam nga en tout moom daal ñaanal naa ko ba yàlla def naa li nga xam ni euh, moom lañ sikkoon daal. Mhm. yàlla na ko si moom mhm. mu ngi def social comme man. mu ngi def social comme man a yem. foofu a la France la nekk wala Allemagne wala. en tout cas daal joueur la daal Sénégal daal Sénégal daal la. ah joueur nag gis nga tey benn affaire dafa <laughs> gis nga Messi ak kii football ci terrain xaar yàlla bii bu ñu xasee doon joueur rek ñoo bokk même ju lettre yi koy bindee du ëppante boo joueur la rek mu neexee benn <laughs> sooy xam nga am nga comme li ma ko waxee xam lépp loo gis sutura la mm-hmm. numéro lay takk numéro 9 11 10 13 wala. xam nga man sax. xool ma sax li muy taal réer bi lay lakk wala <laughs> wolof bi leer wala nu mu demee noonu comme par exemple ñu xam daal ay code tuuti ñu comprendre. waaw nañu bàyyi noonu rek. Hmm? nañu bàyyi noonu rek. wala boo tuddee da lay mere ba day def ay virement ay 300 millions yooyu nga bañ nga bàyyi ko. <laughs> non du loolu sax <laughs> xam nga. mais man dama bëgg ñu xam ne njëriñ a ngi fi parce que tey football a ngi am na joueurs yoo xam ne que bu ñëwee équipe nationale dootuñ dox fa la ñu jaaree am problème xorom sa dem. léegi tamit il faut tamit ñu wax. xam nga coupe du monde bi boo duggee si youtube bi di nga am loo fi gis loo xam ne waxoon naa ko. waaw loo waxoon ci coupe du bi. kilifa bu mag. Mhm. bu yëngu si wàll lii lu ñu koy sax sport. Mhm. bu football bi desee trois mois digg wax naa ko na def benn sarax. Mhm. boo xam ne bu ko defee mën na yàlla def Sénégal xëy na mu at mu indi fi coupe bi. coupe du monde ah? jamono yooyu wax naa si bu ñu ni ko gis. Mm-hmm. wante defu ko yónnee naa message def naa lu nekk faaliwu ma. Ah, bi moom mënu ci la bokkut ak yëfu dina fa ñëw mm-hmm. léegi ma wax ko ma waatal ko seen barke ma xam ma rasul asama bakkandoom ma wax ko lii dafa ko de wante bu leen yaakaar sax coupe ñëw fii. man lii man maa ko wax billahi wal azim waaw coupe du monde nag ku am xel bu ñu fay dem sax bul xalaat mu ñëw. parce que man moom boo xoolee. moo ko loolu moo ko ay sax bi ñu football. Mm-hmm. jour ba sax seetaanu ma ko ndax man xam naa li ma yàlla woon ba pare. Mm-hmm. xam comme ni mu la ko waxee. loolu man mii mun ma koo def. Mm-hmm. jour bi munu koo def. ki nga xam ni moo jiite yëf yi. moom la seet bi wane loolu la war a def. Aliou Cissé wala mm-hmm. moom xam na. Mm-hmm. Matar Ba. du daal ñoom xam na mm-hmm. ki may wax xam na bu baax. yàlla xam na sama diggante man ak moom xam na. te du ma fen. dara jëlul ma may fen. en tout cas daal kilifa la. kon sarax bi à peu matul un bi du dara. te loo bu leeroon mënu naa ko def man maa koy def wante am na dafa am loo xam ne. nit ki ki nga gis si comme seet bi rek moom moo ko mën a def. jour boobu bu ko mënoon def dama ko wax nañ ko def waaye am na loo xam ne jour bi wan koo def am na loo xam ne. takk ci kaw kooku nag nekkoon nag lii bu nu xañ teraanga ji. waaw wante xam nga. àdduna mm-hmm. ni Sénégal lépp réew jàmm la rek. Mm-hmm. bugguma comme lu ko waxee rek. Mm-hmm. bu ma soño daal ñoom ñëpp daal. dañu nekk si jàmm. moo tax mais léegi daal coupe du monde waxoon nga lool. mais kii euh, joueur bi moom moom moom côté bi nu nu ko mën a waxee maanaam région bi mu dëkk région Thiès la. non ah? non man comme lu mu la ko waxee. wala moom daal bu dee ba feeñal boppam. waaw ah. ma xam ne feeñal boppam. waaye léegi joueur mën nga doon may lenn dix lay takk trois quatre un ba neuf wala vingt deux wala yooyu. yàlla xam na ni. léegi mën nga may championnat ba muy football Espagne la <laughs> wala itali wala Angleterre. non xam nga xam nga xam nga sunu milieu bi. non dafa ñuul dafa xees <laughs> ah waa joueur bi yow taw dugg bi xam naa bu téléphone amee moom mu dugg woote en direct nag wax ne man maa ngi nii. xam nga milieu milieu boobu. déedéet wala da ngaa bañ mu mere la. waaw loolu laay bañ. <laughs> wala kon apprécié ñu tur bi fi mu tàmbalee rek. non jëru ko. wala sant bi fi mu tàmbalee. jëru ko moom xam na xam na xam naa. mais joueur bi la wala fa mu leer na. <laughs> jag ba jaaxle na suqu comédien jaaxle na docteur Wade di yéemu na Baye Massamba Diop fàtt ji na xarmat jaaxle na monsieur so sëñ Ablaye Faye borom dimbal ah waa léegi Paris Saint-Germain dina mas a jël lig des Champions wala mm. Paris dina mas jël Ligue loolu lépp xoolagu ma ko waaw ah, xoolagu mm-hmm. mais buñ ñëwee ci yow mën nga ci daal si kattu yàlla dinaa def lu ma mën wax dëgg yàlla joueur bi du gànn den <laughs> duñ tourné benn pas du <laughs> du Sadio Mané. yow dinaa la ko wax Diao Baldé Diao Baldé dafa yéen a nuroo waxee du moom. bu ñu wéetee dinaa la ko wax. <laughs> pour ma gën si wax ji. ah ah joueurs yi joxe euh, social kon xel la xel am na lu mu nangu daal ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax kon kon daal joueur bi yow koo mën di doon yàlla nga ko gën a man ah. man boo ma defalul dara sax mënal askan wi dara rek kon ne gën ko man tey tàkk ndax Afrique la nekk man daal fi nekk nii li ma bëgg africain yi ni drogue baa defoon sëf seen koo rek fu mu fekk tubaab yi doon fubal seen kaw kenn du ci man dara sëñ Ablaye Faye euh, borom ndimbal léegi nag yow loo tëlee loo tëlee. man moom. loo tëlee waaw. bari na loo xam ne dama koo tëlee. Mhm. li ma tëlee nag dama koy jox sama beneen moroom koo xam ne aay na si. Mhm. ma jox ko wante dama si jéem a dugg. Mhm. comme koo xam ne lii moom bu bu bu amee jërul mu ñëw ci yow mënoo ci dara. non xam nga. xam nga lépp loo xam ne maa ngi ñaan ki il faut ma xoolal ba xam lii mën naa ko faj wala mënu ko faj mhm. fekk lu dëgër la ma wax la ah lii mu mun ma ko fekk loo xam ne day yomb ma wax la day yomb fekk mun ma ko ma wax carrément demal ci ñi nga xam ñoo ko mën mu ni am na ñoo xam mi naa tegtal loo ci mën da nga <sighs> loolu man bu ma ko defee amoon sama mbokk bu koy def boo ko deful sax ba doo sëriñu courtier nag wala nu mu demee sama mbokk mooy. Ah, sama mbokk mooy ki nga xam ne xam nga mm-hmm. xam dafa yaatu. Mm-hmm. xam nga tey xam-xam nekkul lépp lu ñëw rek nga ni da ko si da nga koy faj. il faut nga xool ba xam lii mun nga ko faj wala mun na koo faj. Mm-hmm. loo mënut a faj ngir yar wala suri bu laal jëlal jox ko ñi nga xam ne am nga yaakaar ñoom mën nañ ko faj nga jox leen ko. du ma wàññi dara. mais ngóoroo ay ñoom gaaw a daanoo gaaw a yegg ku mënul dara ku limu faible yooyu mën nga ci dara moom. waaw am na bagage yu fi nekk. ba bagage yi nekk lan la li yoo ne benn engagement bu dis nekku ñu am na bagage nekk man mii sax am na bagage yu fi nekk waaw loolu moom ku ci jotee ak yow moo la tooñ de toog ci émission bi am na bagage yu fi nekk rek nga ñëw daan gisuma kii mooy loolu maa bëgg mu wax lu leer naññi kum doy nga ñëw kum doyul nga xam doyul en tout cas daal waaw affaire euh, yokk awra daal ay yooyu moom yokk awra mooy augmenté boobu moom doo ko def mais am nga sa mbokk bu koy def waaw mais ñiy gaaw a yegg ak ku nekk mag ak ku feebul ak yooyu man nga ci dara. loolu am na. Mm. Mm-hmm. léegi li nga ko joxe ba du la am effet secondaire ak yooyu. non du ko am incha allah. alxuraan la wala ay garab wala. ay la rek jaxase rek yoo jox ko. jaxase ah ba du dem ci marché bi dem rek indi. <laughs> déedéet. <laughs> léegi jigéen bu loo ko mën a moom. loolu rab la. rab la parce que boo xoolee. Mm-hmm. jigéen bi nga xam ne du yëg bànneex sëy ak góor ki nga xam ne du yëg bànneex sëy mooy jur ñi nga xam ne matul parce que yàlla bu la bëggee defar il faut mu jënd la lu ma la jëndee si bànneex la lay jëndee te yow mënoo yëg bànneex bi mënoo yëg bànneex mën nga fi indi loo xam ne lu matul parce que li tax bu demee ba yëg sa bopp li ngay yëg ba xamatoo foo toll ba xamatoo lu lii lii foo la di yàlla di di la jinn di la jinn ba defar la foofu loolu nag bu demee ba amutoo ci yow mën nga indi loo xam ne lu matul la te loolu rab da koy def. rab da kon daal léeg mu doon ngëneel la. Hmm? ñàkk yi bànneex say léeg mu doon ngëneel la. non loo baaxul. ba ah, baaxul ok. baaxul. ah de damaa da nga ne ku am léeg-léeg amul léeg mën na. boo gisee la dama la wax euh, nit ki. bu fekkee yaa ngi sëkk jigéen te amoo si bànneex amoo si bànneex. góor ñi koy am problème jigéen ñi la. waaw jigéen bu ñu amul bànneex. Mm-hmm. loolu mun na dem jur loo xam ne lu matul la. Mm-hmm. parce que diggante foofu nga yëg bànneex ku góor gi di yëg bànneex foofu la di yàlla di jinn di la jinn ba defal nit bànneex boobu bu amul mun nga jur lu matul loolu rab da koy def. rab da koy def. Mm-hmm. ah waxtu baa ngi ñuy dab ah, léegi nag kuy yëngu ci wàllum bac BFM examen xeetu concours yooyu nag bëgg ci am ay douanier ay comme concours ENAM xeet yooyu daal ku ci bëgg ndam yi nga xam léeg-léeg ay 1000 personnes ñu yooyu tamit ku ci ñëw mënoon nga ko ci dara wax. waaw si kattan yàlla am na loo xam ne moom bari xam ne sax defal naa si ba yàlla defal na daaw ak yeneen topp moom am nañ si lu bari wax dëgg yàlla. Mm. du ma wax nag ñëpp ñoo am. Mm. man du fen am na ñoo xam ne ñaanal la ñuy gis am na ñoo xam ne moom mi seen mbir dëgër na mm. loolu day am nit ki di bu wax bu wax déedéet ku ñëw lii la déedéet dafa mm. gis nga yàlla comme lu mu la yàlla du la may lépp lépp lépp lépp lépp mm. il faut nga am loo xam ne yàlla da la ko manqué la mais loo gën a loo xam ku fi ñëw ale bi retour bi moom ko yóbbaale li ma gën a aay mooy dafa nit ki mu nekk borom alal ba milliardaire tes <laughs> maa ngi day def test tey fële ca Barcelone Cheikh Talif day def test fële ca sëñ Abdoulaye Faye borom ndimbal kee dafa bëgg a fubal ñu xool numéro bu ñu ko jox pour mu dugg fubal kii nag moom dañ ko bëgg a def milliardaire léegi tey test bi maa ngi nii. kon jeex na après dinañ gisee. après dinañ gisee. waaw kon fii année bi jeex mën na nekk. non après dinañ gisee. lu ma wax naa la ko sànq. waaw wax naa la. parce que bëgg naa dawal ay rans. am na app yu bari yoo xam ne. Mhm. loolu dangay ngay jël loolu bu jox ko sunu borom. Mhm. mais test bi moom fii lay réussir incha allah. Diop laa sant nag dégg nga <laughs> Diop laa sant Cheikh Taalif la wax ku ma bëggal liggéey euh, yow moom sant ma Diop pour nga comprendre ku bëgg envoyé xéwal tamit di envoyé code yi jékki-jékki bëgg rek bind Cheikh Taalif ma naan la oh da ngaa jëm ci kii bi nga koy changé waat defal Cheikh Diop ñaanuma kenn lébuma kenn waaye ku ma jox ma jël na comme ni ñu koy waxee nuyoo murit ak yooyu mais nag bu bu ma testé test bi réussir ma doon milliardaire nag ngeen kon na gis milliardaire buy def tegtal waaw parce que li indi loolu dañ koy fonk kon euh, da ngay seetal askan wi balaa année bi jeex damay seetaan. da ngay seetaan askan wi balaa année bi jeex incha allah ma doon milliardaire. <laughs> comme lu ma la ko xaalis nga wax moom. xam nga loolu. Hmm. xam nga ba léegi tey. xaalis bu lew te barkeel. bu ma la waxee jamono toll nii lépp lu ma la wax. Hmm. ay fen la parce que xoolaguma sa mbir dëgg-dëgg. ah, ah, ah fi engagement bi. engagement bi mais ma yaakaar na ngay xool nit di gis loolu nga waxoon sànq. waa da ngay gis wante est-ce que lii nga xam ne moom laa gis yow dama ko génne fii. est-ce que ba génn ko fii dina la arranger wala du la arranger. li nga war a wax mu dafa mel dafa mel gisu de li wala. non loolu sax ah, wante xam nga comme lu ma waxee xam nga wax naa sama bagage. sa bagage. pour nit am fa accès il faut ñu sëkk. il faut ñu sëkk waaw jeex na. yow bu ñu sëkkagul. Mhm. mënoo fa amagul accès kon dinaa ñëw bu caméra yi fay rek moo dugg si kër ñu xool loolu ko <laughs> njàkk ba moo jëlee ko RTS mu dem dooral ma correspondant fële ca Angleterre. jël coq yóbbu ko fële mu demal ma fële ca France ak yooyu. Euh, docteur Wade ma yóbbu ko fan réew kii Arabie Saoudite laa ko yóbbu comme lu baax la bëgg Baye Mass ma yóbbu ko États-Unis Petit ma yóbbu ko Guinée Bissau wala baax na <laughs> Bissau bu baaxul ma yóbbu la France suñuy kontaan nañ trop waxtu beeru dàpp looy tàggoo bu du tàggatoo koy sant ka gërëm ci tey gi dal gi euh, ak accent parce que da santu séeréer ak accent mu demee noonu. sama yaay baax la sant. sama papa Faye. Faye waaw loolu la mën a xew parce que yaa mbag njag ba nuroon ngeen di waxee. ba pare yow nga yor bu baax dinañ ñëwaat Thiès kon euh, kuy ñëw Thiès quartier Madina Fall lay def aksi waaw comme lu ma ko waxee rek. Mhm. na faal ko tudd Mbasko si teen poli. Mhm. may tàggatoo mooy nag comme. ñun soxna yi wala soxna si. soxna si soxna si. <laughs> waaw takk ñaareel ma tànn ay ji fii léegi. damay bàyyi ba sa kanam. kon soxna sa xel dal na tuuti ah. Eh. fii ñaata dix ans ah <laughs> bu tax ni may xuloo. ni ma ku bëgg a dimbali kay xam na ne nag ku ne day takk ñaareel bu la mayaat dix ans moom mooy prolongation mat na sëkk. loolu loolu nañ ko tënk sa kanam. ñu tënk ko aja. Uh-huh. waaw njëkk ba moom problème am moo tax mu takk ñaareel. <laughs> commandant nga <laughs> ah. bante. en tout cas daal maa ngi mm-hmm. maa ngi nuyu président Macky Sall. président Macky Sall ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu ak Marème Faye Sall ak projet yi nga xam ne teg naa ko mhm. pour juma ay projet milliards ah ay juma ak école yëpp teg naa ko euh, yu jëm ci social daal waaw yu jëm ci social lépp daal teg naa ko si loxo moo moo koy signé incha allah président Macky Sall moom laa bëgg signé ko président Macky Sall kon kii gën koo jàppale gaawal boobu big palais bi nag léeg-léeg tam big mën na faa ñàkk sax nan indi conteneur big pour signer pour bu mag yi di génn mën a signer buy duggee ci oto bi mën a signer parce que projet yi suñu Ablaye Faye borom ndimbali dafa war a dimbali ko ndax président Macky Sall moom dëgg yàlla mu gis naa liggéeyam macha allah. Mm-hmm. maa ngi ñaan mu gën a yokk mu gën a jàppale askan bi dimbalee ñi nga xam ne daal seen loxo jotu gannaaw parce que loolu rek laa bëgg man social rek laay dox ndeysaan yàlla nga kuy def lu baax daal ma ànd na yow ku mm-hmm. deful lu baax nag xaw ma si yow dara mm-hmm. wallaahi eh, doonu ko amoo xarit boo sant ko gën ma man damaa bëri xarit da nga bëri xarit ok kon nuyu nga soxna si ak njaboot gi ak waa Thiès yëpp ah <laughs> euh, ma jox la numéro bi ah jërëjëf sëñ Ablaye Faye borom ndimbal euh, ma jox la numéro bi yoon bu mujj ci biir émission bi bindal maire bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro sëñ Ablaye Faye borom ndimbal 77 277 50 61 77 277 2 ak ñaari 7 50 61 sëñ Ablaye Faye borom ndimbal numéro bi am na whatsapp nga fekk ko fi euh, ci Thiès quartier ma Fall di ko soxla lu mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën na lépp di jaajëfal tamit euh, waa Allemagne suñuy xarit Ousseynou lii Allemagne Dieynaba Diabaté ñaaña ja nekk fa ci Allemagne ak tamit mami d'enfant France Fat Diop Amérique ñëpp ñuy bégee Tektal Ibou Dieye Espagne comme ci man di doon góor a taal Amadou jaawara borom pare ñëpp gërëm na leen équipe technique bi ñu àndaloon moom it docteur Wade bu Casamance nekk ci Baye Massamba Diop bu Derklé nekk ci Petit Sow Moussa Sow bu Mbour nekk ci Xarmat nekk ci di jaajëfal njàk ba fële ca RTS borom émission bég leen ak cuq comédien nga xam ne que tamit euh, mii fële ca 2STV ak ñoom Pape Sidi Fall ak Kaja ak ñëpp gërëm nañ leen tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraange dakk ngeen abonné ci Tektal TV bés fu ruus bi bés kolos bi abonné te doo ci fay dara jërëjëf sëñ Abdoulaye fay borom ndimbal yàlla na la yàlla gën a dimbali ba nga gën a mën a dimbali jaajëf